bi mu ko lancé sur les réseaux sociaux euh, muy Fallaye Lange fu muy Lange nag gis ngeen ko mais ka mu jël nag moom moo kiiwul mënoon na jël Alioune Sow vraiment. merci mais man aw ma ay rasta. Eh, amoo eh, moo tax jëluñu la moo tax jëluñu ma moo tax jëluñu ma c'est dommage. vraiment donc euh, beneen style beneen vibes comme du ko rappeur yi waxee euh, pourquoi le choix da ngay wane ba tey polyvalence bi. déjà bonjour à vous DJ Maro mm. bonjour euh, tout le monde di rafetlu invitation bi c'est un plaisir pour moi d'être là d'être euh, une deuxième fois l'invité de Petit Déj waaw mm, juste di wax ne fa laay langue on a voulu sortir de l'ordinaire dañoo bëggoon génne ressortir ce qui était en moi sincèrement mm parce que je me dis que ça c'est moi mm-hmm. la nouvelle Rema là que vous voyez kii mm-hmm. mooy Rema dëgg-dëgg la première fois on a voulu wan nit ñi lan mooy suñu culture à travers Asgor rappeler les lan mooy euh, la base d'une relation mm-hmm. donc tey jii ñu ne nañ def loo xam ne ne ñun suñu style la loo xam ne na ñun on est capable de réaliser sax et c'est c'est c'est arrivé voilà muy touche jeunesse bi nga nekk ndaw euh, dañ lay taxé que da nga màggee euh, bind écriture si fi ngay woyee parce que fi nga jàngee woy la si euh, mag ñi nga jàngee donc euh, euh, si bind bi ngi ba boo xoolee as gor na la nga sa bind fa lay laa également tamit c'est vrai que amagoo jëkkër mais la nga sa bind lan la bind bi mën nga ñëw si say écriture say forme déjà lépp entourage la. entourage la waaw ko am ndëgër laay doo doo daanu. Mhm. mën nga mën nga kii mais da ngay jéng rek mais doo daan tu donc euh, pour euh, Asgor bi. Mhm. on avait c'était avec euh, mon directeur artistique. Haj Mansour Mbaye Olbayadi dina ma koy nuyu bu baax di ko ziar. Mhm. mais pour Falaay Langue bi comme Chérifou moom macha allah. donc dañoo toog waxtaan ci après ñu liggéey ci. Mm-hmm. Uh, seen rapport uh, Chérifou Job sa Brian uh, ñoom ñoo def but bi boo xoolee sax moom mu ngi si vidéo bi moom seen seen seen seen relation c'est venu comment. rapport non bi jës moo ko def jës bit. ah jës bit ok d'accord moo ko def bi mais mix bi lépp Polyman moo ko def. bu Rock Team mais Chérifou ak Job sa Brian c'est des frères. ok macha allah c'est des frères yoo xam ne ne iñaanuñu parce que boo dee ndaw. Mm. nga nekk ci benn milieu surtout showbiz. ñu jël la teg la seen seen wet di la mm. jàngal te mm. xam nga rek ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wax fi ngay toog mm-hmm. donc dañ maa jël tete ma tatagal ma di ma wan yoon bi mm. et c'est vraiment quelque chose que je salue nag ay borom baax lañ mbir mi potu ndaal la nañ naan jox seen morom ñu naan ok euh, si réalisation vidéo bi kan moo réalisé vidéo bi euh, scénario bi également ba tey ñoom ñoo si jàpp Ziz Aar Imam <laughs> moom moom macha allah moo def vidéo bu yàññ bi e c'est vraiment un parce que da ngay da ngay seetaan sa bopp di kontaan parce que mhm. qualité image bi. Mhm. c'est pas pour me vanter. Mhm. mais macha allah qualité image bi Ziza. macha allah coach. waaw euh, c'est que euh, dama lay yow li nga waxee man foofu laay jëlee sama euh, laaj yow da nga ne lii c'est moi. nga ne lii c'est moi non quand je dis que c'est moi. Uh-huh. c'est le style qui compte. Mm. ok comprendre nga. Mm. je suis je suis je suis appelée à être amoureuse. Ah, tu es bien sûr à être amoureuse à fonder une famille parce que fa laay laangee. c'est entre un mari et sa femme. Mm-hmm. le mari il a tout fait pour sa femme. Mm-hmm. cest dire épaulé na ko jàppale na ko ba dara doonulee dara. Mm-hmm. ba jabar ji dooni dara. tu vois donc dañuy ñaaxaat nit ñi cest dire booy ànd ak nit mu sagal la sigil la. dafay neex. nga delloo ko njukkal. ci wàll boobu mm-hmm. dafay neex nga delloo ko njukkal mm-hmm. nag nit mm-hmm. dafay am lu muy jomb nit dafay am kóllëre ah voilà si on peut venir si promotion bi euh, euh, yaa ngi si promotion bi yomb na euh, wala yombul ñu ngi koy teg si rajo yi si télé yi est-ce que c'est facile loolu nag question bu ma intéressé la DJ <laughs> Mabou parce que da ngay dugg studio uh-huh. def sa produit uh-huh. tu te donnes à fond tu n'as pas de sponsor déjà tu te donnes à fond ci ci ci pars parte tes propres moyens. Mm-hmm. dem studio liggéey pare dem def vidéo te looy def rek da bëgg mu doon qualité image parce que image dafa doy waar. Mm-hmm. dem ci te donnes à fond ba am li nga am ba pare kenn du ko jàllale ci télé yi. kenn du ko jàllale ci rajo yi te ku ko gis dalay leer na bu ñu seggee xool xam ne ne soo bi neex na parole yi am na solo te ku ko déglu dina ci jàng image bi tamit rafet na mhm. tu donc que ça soit les télévisions que ça soit les rajo nañu jàppale artistes yi mhm. je parle papo pour moi-même mhm. damay wax damay globaliser parce que artiste là damay artiste je dénonce des vices tu vois donc damay soxla nit ñi di leen rappeler que ñun aussi ci lañ bokk ay xale lañ te ñun mag ñi ñoo ñu war a yëkkati teg ñu ci kaw mais ñu bàyyi privilégié bi parce que des fois gis c'est comme si que ne dañuy xaw a privilégié ay artistes mm, te ñun li ñuy def yëpp pour suñu public la li ñuy def yëpp pour ñi nga xam ne ne ñu bëgg la mais aussi pour ñoom la parce que mm-hmm. suñu qualité image buñ ko tegee wallahi dañuy xam ne ne lii mbër a ko def c'est c'est clair mm-hmm. euh, comme ni mu ko waxee rek comme fi nga waxee noonu nga xam ne lancé nga li nga xam ne moom moo di euh, les médias mais tey ji est-ce que tey ji xool nga benn xam ne benn politique boo xam ne parce que dañoo gis maintenant li nga xam ne ni moom les réseaux sociaux dañoo accaparer lépp loo xam ne buzz la lépp loo xam ne dafa war a nekk sur la toile est-ce que tey ji nii yéen en tant que artiste yéen a ngi xool benn euh, comment dirais-je benn façon boo xam ne da ngeen koy établir à ce que loo leen def rek mu nekk au top au-dessus de la toile ba médias yi sax dañuy être obligé à ce que ñu teg ko parce que seen public da leen koy demander. déjà ñun lépp lu ñu war a def def nañ ko que ça soit ci plateforme musicale yi que ça soit sur YouTube Instagram Snap lépp lépp lépp lépp mu ngi fa. Mhm. lépp lépp lépp mu ngi fa mais ak réseaux sociaux lu mu am am doole télévision mu ngi fi. am na ñoo xam ne léegi duñ nekk ci réseaux sociaux am na ñoo xam ne ci télé la ñuy nekk am na ñoo xam ne rajo la ñuy dégg da ngay déglu taximan boo xam ne <laughs> ci taxem lay yendu à longueur de journée bu ñibbee dafay tëdd nelaw boobu noonu ci lañ mën a jaalalee ñun suñu son ba taximan boobu dégg ko mm. cest dire ñun on a tout fait lépp li nga xam ne mm-hmm. war nañ ko def rek pour promouvoir suñu suñu son mm. ñu ngi koy def malheureusement mm-hmm. kon dafa am foo xam ne daal di ngeen fa am ay difficulté tout temps fay am difficulté tout le mm-hmm. temps te ku déglu son xool qualité image au mën naa comprendre loo xam ne ne paroles yi parce que des fois da ngay déglu soo boo xam ne paroles yi day blessé wala dafay xam ne dafay am nu mu dénigré mais paroles yi nga xam ne dafay jàngale image bi nga xam ne dafa leer qualité image ku ko gis ku segg dina xam ne na yow mii ni bu ñu waxee arène bi sa son du ci génn mbalax sa son du ci génn tu vois donc ñun ñoom ñoo ñu war a jàppale voilà donc la suite ça sera quoi c'est ba tey yaa ngi si si si si stylu def single vidéo album non Euh, c'est quoi euh, le projet su fekkee ni court terme sax laay wax. ñu ngi ñu ngi waaj lu bari. 2022 bi incha allah dinañ gisaat vraiment ci yeneen facette. parce que mm. ñëw nañ ak mbalax. pare ñëw ak R&B mhm. peut-être mën na ñëw ak acoustique mhm. parce que am nañ ay polyvalence yoo xam ne ne bëgg nañ suñu suñu réew ñu xam ko mhm. ok euh, pour mu leer euh, Aliou Sow bah moi pas juste à la fin ah. qu'elle me fasse la chanson qu'elle nous avait faite la dernière fois euh, euh, Iwasado de Nayan euh, dama bëgg nga ñëw falay langue bi c'est vrai que am na ñoo xam peut-être euh, dañuy topp toujours ambiance bi ba peut-être li ngay wax ci biir son bi duñ ko maîtriser dooñ euh, si mën a may en acapella après nga def si neneen kabel bi voilà. si di leen ma wax ko benn yoon yéen moom jaaral na ma. Hmm. yéen si ma wax ko ñaari yoon noo yéen na ma. dina ma ma toppatoo. dina ma jege saa di ma ree dina ma woowee dina ma toppatoo waaw waaw dina ma jege saa su ne di ma ree man xàmme naa la te yaa ma doy ci farandoo danga ma neex chéri saay saay man du ma mën jege kaay kaay yaay sama kooko rappe saay eh. saay du ma xool kon taamu naa la ah. yaa fi ne. ma sagal yow laa. Ah. ki ma teral laa. ki ba ma tedd tedd ma ci su ma bëggee yow laa. ñu naw ma bilaay ginnaaw kon tey dees na ci man. ma mat la sëkk yaay. mat la jabar mat la ki lay bégal ki lay raay. bu doon bu doon ay nax sax neex na. non non non yaay góor ci biir woy bi. bu doon ay nax sax neex na. non macha allah parce que man pour man sax euh, man pour man musique en en tout cas yi muy def yi neex na mais da koy tënk parce que xam naa voix am. Mhm. Euh, polyvalence. c'est c'est dama si naan kabir bala bala bala ñu bala wax ci kii mën na woy wala vraiment elle est eh, eh, formidable macha allah. mati ñana tomona yibonge balula mati ñana tomona yibonge balula oh. ne mato ni ñana tomona bi. nitumanye umanyite omokoke itabi kanule kanongela tumamina kuisuro bara misimina kanule kanala tumamindabi kikana tuwayatamika mm. wala kuisurola ifa ibara yareyarela sorofananitigi odamunginida يوسدو يوسدو يوسدو رلا يوسدو يوسدو يوسدو iwasodo irila iwasodo iwasodo iva ni bara nyala ni biye manute arelo elle a une voix extraordinaire. extraordinaire. Euh, euh, amiin lafal ko cat yal na lay way nii. waaw la euh, ak ñoom quelque part au Mali. c'est c'est extraordinaire ñu mel nii mënuñu nekk ci réew te duñu bari xaalis parce que ils font plaisir à des gens ki day woy sa yaram di daw. elle mhm. doit elle doit réussir réussir bi réussir na ba pare ci am na ci succès ba pare ça y est c'est terminé waaye daf ci war di dund ba àdduna bi yëpp xam ko ñuy dem muy def ay euh, euh, Grammy Awards euh, ak yu demee noonu foofu loolu lii la parce que il faut juste ñu dimbali ko président Macky Sall bu fekkee ñeneen dimbaluñ ko il faut essayer de d'influer ci sa ci sa yi ngay def ci réew mi ak ci àdduna bi pour que ndaw si booy dem ci ay béréb sax muy way ñu koy gis di ko xam mu mën a jàll ci leneen boo leen ko defee seen réalité. bravo euh, ah Réma am na lu mu la mayoon. Cheikh Fallou may na ma. Cheikh Fallou na ma. moo tax ma xam ak sañ-sañ ma la ko ma ko. ak doole jaag maya garba axelaw maxu tiji tiji tiji tiji ba jaay seexla ci faalu ba ay ba demees ndeysaan ndeysaan am na ku ko dàq waay kii ci réew mi eh, gisuma ko ah moi non plus. en tout cas mi doon vraiment merci. li ñuy def rek moom mooy ñu bàyyi la su fekkee am na loo bëgg a lancer li xam ne tey jii par exemple. waaw dafa am loo ko bëgg a waaw dafa. dafa jeex. sa sama soo soo xolo sori. voilà Cheikh Fadilou bi. Mhm. ma macha allah ah di la ñaanal yàlla lafal lafal la cat yàlla lafal la cat mais xam naa waxtu wi xaw mm-hmm. nañoo xoj te fum mu toll nii yóbbu nga ñu fu sori mm-hmm. ba man mi euh, li ma bëggoon exprimer yëpp euh, dafa xol bi dafa xaw a fees bu ko defee euh, maxu ñu bàyyi ko moom mu tàggatoo ak mbokk téléspectateurs waaw juste di remercier ñëpp ñi nga xam ne ne ñoo nekk ci ginnaaw awma seen fay ku lim desal hmm. di leen remercier aussi ci invitation bi parce que dafa neex nga def sa mbir ba pare ñu invité la poser la ay question ci li nga def mhm. neex na ñu lay poser ay question mais il faut savoir poser des questions pertinentes boo xam ne ne yow boo ci répondre di nga xam di nga am soulagement donc di leen remercier di remercier Maxu vraiment moom mu ngi jàpp ci liggéey bi man di wax gars yi nañ si jàpp muy rajo di télévision ñu bàyyi privilégié bi ñun ay xale lañ te lii lañ am mhm. mis la musique dañuy jàng et mais lii lañ am c'est quelque chose boo xam ne dañ koo bëgg on vit la musique mhm. te bëgg nañ suñu musique àgg fu mhm. nekk on veut porter le drapeau national partout dans le monde ba frère macha allah vraiment en tout cas euh, euh, Mamadou bi tey dina kontaan lool ba ma la di invité top live il en revenait pas donc mu ne ma kii la moom mi ngi noonu en tout cas mi ngi noonu xale baa ngi noonu bàyyi leen ci xel jaajëfal ñëpp ñi nga xam ni euh, vraiment doon nañ ko xaar